bi nga xam te ni Ousmane Sonko wax na ci wàllu école yi ak yu mel noonu kàddu yooyu nag xëy na jullit yi mel na dañ ko disee dégg bu baax moo tax euh, li may njëkk a wax nag mooy ñun suñu pas-pas ñun jullit ci Seydina Isa mooy dañoo gëm ni ab yonente bi yàlla la bépp jullit bu wedd ni Seydina Isa du yonente rek doonatoo ab jullit waaye ab yéefar ngay doon laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli moo tax sax am na ci nusuusi xadis yoo xam ne day wax ni wa anna isa nabiyullahi wa rasuluhu maanaam yonent bi mu yónnee ay na ngeen leen wax ni isa jaamu bu yàlla la di ab yonenteem di ndawam lu mu yónni kon ab julit loolu la bokk na war a gëm ñun isa Ilias ak Idris ak Moussa ak Souleymane ak Daoud ak kum a doon ak ñiñ ci xamul sax far ku bu wax ni kenn ci ñoom du ab yonente rek julit boobu génn ci lislaam ndax dafa bokk ci pas-pasu lislaam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 yaayante yi mu gën a fonk muy ulul azmi rasul moo tax Seydina Najaashi booba la daal di adapté wax nañ ni loolu moo dugal lislaam ci biir xolam ba ba mu faatoo yonent bi sax jullee ko loolu ñu xam ko mu leer bi ci tege mooy ñu xam ni wax ji yi nga xam te ne abbé bi moom la wax maa ngi gis lenn ci ay ustaas nag di ko layal ak di wax naan abbé bi kat ñun ñoo warul suñu école yi bopp ñoo ñàkk fay ñoo dem déedéet ñun ñàkkuñ fayee de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 ala kulli xaal moom dafa wax ni moom abbe bi seyd Seydina Isa mi ñu rey gëmul Seydina Isa mi Isa mi ñu soppi kanamam gëmul tamit Seydina isaa mi nga xam te nii dañ koo remplacer ak keneen rey ko waaye kim gëm mooy Seydina isaa mi nga xam te nii dañ koo wékk ci salib bi ci croix bi loolu nag pas-pasam lay jéem a dëgëral xëy na ndax croix la trinité bi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko loolu nag offensé l'islam munta weesu munta gën a rëy lii ndax alquranul karim moo ñu wax ni wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu walakin shubbiha lahum seydna isa ko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 fit bi nag bu ma fi teewoon di ko wax yaakaar naa du du ma fi jógee ci lim am ci ay mawaqif yoo xam ne day wane aw fita moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Seydina booba la daal wax nañ ni sax loolu moo dugal lislaam ci biir xolam ba ba mu faatoo yonente bi xam ko mu leer bi ci tege mooy xam ni waxit yi nga xam te ne moom la wax maa ngi gis lenn ci ay ustaas nag di ko layal ak di wax naan abbé bi kat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 dañ ko wékk ci salib bi ci croix bi loolu nag pas-pasam lay jéem a dëgëral xëy na ndax croix la trinité bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko loolu nag offensé l'islam munta weesu munta gën a rëy lii ndax alquranul karim moo ñu wax ni wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu walakin shubbiha lahum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 fit bi nak bu ma fi teewoon di wax yaakaar du duma fi jógee ci lim am ci ay mawaqif yo xam day wone aw fitam mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waye guddi googu mbok yi dafa nek mujisa min mujisati nabii sallallahu alayhi wa sallam ci miracle yonente bi la bok ndax bi Seydina Ali toogee ci tëddee jilal bi yonente bi mu genné romu na len ñom ñu tëdd di nelaw romu na len ñom yàlla nelawal len ñu tëdd di nelaw yonente bi jël suuf xep ko seen gémmañ yi dal len romu dem ab ragal def lolu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 kenn wékku ko ci ab salit ñun ñun bu yi buñ gëmee nañ ko wekk ci ab salit dañoo weddi alxuraan karim kenn wékku ko ci ab croix moom seydina isa alayhi salaam niki noonu it kenn reyu ko bal rafaahu llahu ilayhi la alxuraan wax yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ca moom moo tax ñun jullit yi xam nañ ni seydina isa ak seydina idris am ñu ci boole Ilias am ñu ne Idris mooy Ilias wala Iliasine ñoom ba tey ñu ngi ci kaw suuf di dund am nañu ci boole sax seydina xadir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 li dem yonent yëpp l'islam lañ indi xana kay dañ fay jóge seen nit tahrif ko yàlla mujj mer wàcce l'islam ji nga xamanteni alquran moy muhayminan alayhi dafa folli téré ko wess won yëpp niki non noonu it yonent bi sallam nek nekk xaatamal anbiya ki mujj ci yonent yi alayhim salaam mais sayna Isa sax moo ñu ñëw yonent bi sallam salaam wa mubashiran wa mubashiran bi rasulin yati min baadi ismu ahmad ma leen di bëggal ci yonent boo xam ne ñëw sama ginnaaw tudd ahmad muy Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax yonente bi sam nee yi ay doomu baay lañ seen ndey yi rek moo wuute Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Isa waaye du woote waat ak yonente mukk ndax xaatamul anbiya moom mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam lii nag jurit bu am complexe wax ko dangaa dëgg wut ci waaye lii mooy dëggu yàlla gu wér mooy dëggu yàlla gu gi amaa nag muuraay yi ak yu mel noonu muuraay moom lislaam def ko digle digle gu war yudniina alayhinna min jalaabibihinna yudniina alayhinna min jalaabibihinna maanaam wax leen wax leen ñu wàcce seen muuraay yi wax leen ñu wàcce seen muuraay kon muray l'islam daf ko digle mu bok ci faraidul ayni faratay jëmm la jo xam julli bu nek daf ko wara def bu fekke jigen la kon kenn amul droit ab julit muru ngani ko da ngay dindi sa muray kenn amul droit bob xawma nak ñom dañ ko tere wala dit ndax di na fi ciow jamono ya sante xaw xawma fuñ ci muju ala kulli hal waye ab julit mom bu jigéen dafa war ci mom mu mur awram mu mur léppam bam dess ay tenxam muy li ak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 loolu la ñuy jàngale ñun kon nag nañu fi bàyyil suñu yonente nañu fi bàyyil suñu wax yi nga xam ne alquran moo ñu ko saxaral te gëm lam gëm te bàyyi ñu wa sallallahu wa sallam wa baraka sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain